noonu mbokk yi bàyyi xel SBT amaan nañu mbégte ak kontaan tey ñëw fii nga xam ne moom mooy Dalifort nekk goxu làmb goxu làmb boo xam si ni macha allah am na ay ay champion yoo xam si nii kenn mënutul wax làmb génn leen si euh, bokk na si Kaw Gourdin ak yeneen xale yi nga xam si tey ñi ngi Dalifort ndax li may wax chaque jour rek Dalifort bëri na ay champion bëri na ay ndaanaan waaye chaque jour li may wax rek am na ñoo xam ne ñoom yàlla teg si bopp bi tey nag Dalifort mënoo te tuddoo ki nga xam ne si moom mooy Kaw Gourdin Kaw ñu bàyyi la nga nuyoog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 noonu SBT Média seen émission seeti si ki nga xam si moom mooy Kaw Gourdin waaye duñu comme ni mu ko waxee duñuy waa diaspora bi rawatina ñoom Biru Mbay ñoom ah ndax Kaw si ñi nga xam ne ñu ngi lay seetaan donte am na ñu la miin macha allah mais pour ñu waxtaanee kan mooy Kaw Gourdin ak la moo ko boole ak laam waaw Kaw Gourdin benn xale la ah, juddoo Dalifor yaroo Dalifor màggee fi lépp lu ma maa ngi ko amee Dalifor fii fii laa juddoo fi laa jàngee bëre ci samay ginnaawu mag ku ci mel ni Kayre Junior Jibi fay Faye ah, Koso Kaaw Cissé sunu sunu mag ñoo ngi koy ñaanal yàlla génnee ko fu mu nekk muy ci prison bi yàlla génnee ko fa ak mbooleem mbooleem jullit yi fa nekk yëpp ah. waaw ñu nekkoon ak sunuy kay sunuy mag ñoom Jal Diop ñoom Séné sunu papa yor ñu muy Tombé seen ñu nekk école de lit ñu dugg ci làmb nag wax dëgg yàlla ba ñu nekk xale yi ndaw xamuñu lenn lu dul làmb làmb moo ñu yàqal lépp waaw depuis ba âge ba léegi ñu ngi ci làmb wax dëgg yàlla mais sant yàlla parce que nit ki moom loo bëgg moom da lay jaral moo tax ñu nekk ci ba léegi aha làmb yàqal yàqal lu bëree bëri euh, est-ce que Kaw Gourdin def na école jàng na école. waaw jàng naa mais bariwul de ah. yàgguma ci moom sixième waaw. àgg sax kii. non dama dugg waaw yaa ma gën a xam mooy loolu. est ah, ginnaaw njàng euh, nasaraan bi Ka Gourdin dem na daar waa jàng naa alxuraan sama papa waaw moo ma jàngal waaw sama papa waaw sori naa moom. wàcce nga wala sori. non ma nag mais sori naa moom waaw. waaw ah, yaa sori naa daal <laughs> sori naa daal. waaw xam ñoo xam rek ñoo xam ne Kaw Gourdin jàng na ba toll fii. naa moom jàng ba ne sixième ñoo xam ne Kaw Gourdin nasaraan sixième la baay ñoo xam ne Kaw Gourdin fii la bàyyi. non non jàng naa moom jàng naa bàyyil foofu rek mu sedd. Ah, am na ñoo xam si ni macha allah dañoo xaw a mel ne man ay musulman lañ mais. nekkul ay musulman pratiquant mais est-ce que Kaw Gourdin ginnaaw bi nga xam si ni judd na ci famille musulman ah di bokk ci euh, kër maam alaaj Hadj Malick ni nga ko waxee di leen siyaare bu baax a baax di nuyu euh, xalif général des Tidiane ah sëñ Mbaye si sëñ sëñ euh, sëñ Babacar si Mansour ah, di ñaan suñu borom mu yàggal ko fi ci xilaafa gi macha allah ak njaboot gi nga xam ne moom la jiite ñëpp ci barke yonte bi di nuyu nag tiyaanu mënu ma ko wax te nuyu ma ki nga xam si ni moom mooy sëñ Habib si bu sëriñ Mansour si ah, borom daara ji di ko siyaare bu baax a baax waaye siyaar ñi nga xam ñoom ñooy teg ko di yónni nga xam samay wëlëre lañu ku leen xam xam leen teyaan ko si mel ni suñu sàmbuub sama xarit sama wëlëre sañ góor a ñang deen siyaar bu baax a baax a baax waaw jullit la parce que ñun ay pël Fuuta lañ ah dëgg yàlla mais fi lañ juddoo fi lañ yaroo waaw dëgg yàlla jullit lañ te lépp lu jullit di def daal ñu ngi ciy góorgóorlu quoi ah, ah. waaw ñu ngi koy jéem a matale aha ah, ci gàttal laa xam naa ni bu doon roi des arènes day génn Dalifor dama koy dama koy doon <laughs> waaw waaw. yi nekk Dalifor laale nga ñu nekkul sax nga xamante ne dañ doon jógee fu sori. bu ma bëreewul moom làmb ji day demee neneen waaw mais bu ma bëree moom làmb du génn Dalifor waaw. ginnaaw ñuy ñëw si bëri simple bi nga xam si nii ràññeeku ko si macha allah léegi mais bi ngay gën a nekk xale. tey ñoo xam ne laala ngeen ci mbapat ñu daan la wala nga daal leen ñoo xam ne tey làmb bàyyi nañ xel ku si mel kana kanaka mbapat bari na de ñoom jaata bu mbuur daal naa ko jaata bu mbuur sele daal naa ko bari na de ñi daan ci mbapat tey jii bari nañ de parcelle parcelle daan naa fa daan laadum laadum këlligi zilo oninga Moussa Dioum numéro 2 waaw ah, ñu ma fàccee bari nañ de. Franc kese waaw ah, Franc. géejawaay ku la koo fa nag lu ma fa mbapat bariwul nag quoi waaw ah, foofu moom lu ma fa mbapat bariwul mais bari bari naa fa moom bari naa fa ba jël fa tournoi. waaw ñooñu xaw ma leen nag. bu ma juum kooku mu ngi mu ngi Europe ki bëre woon euh, euh, jëf jël xaw rouge ba loo daal moo ngi Europe daal waaw. jàmm gën. ngeen non mosuma fa bëre moom. kenn daanu la fay. si jàmm ngeen si jàmm ngeen moo a fa daan. waaw non arène loolu arène la. mbapat laay wax. mbapat moom bëree ma fa mbapat quoi. ah tamit bëree ma fa mbapat. waaw kenn daanu la fay SBT Média la ah seen émission seet ba ñu seet ci kaa gone Pikine ñëwaguñ fa de Pikine. Pikine non non Pikine moom daan naa leen moom Pikine moom mosuma fa am moom daan naa fay mbër de ñooñu est-ce que bàyyiwuñ ñooñu daa ni bàyyi nañ de mais mbapat moom daan naa fa Pikine moom daan naa fa de. ñaar ñu làmb xam rek actuellement. Pikine non non ñooñu mbaay ñoo ba bëreewuñu arène sax ñooñu jotuñu bëre arène quoi. Mhm. dégg ngeen palmarès bu rafet bi nga xam si def na ko si mbapat ah, macha allah si mbàccum gerte sa premier combat arène yaakaar lool. maak euh, Sa Ndiambour numéro 2. waaw bu ikiri booy ñaa waaw waaw man kay njaareem waaw moo tax ñun moo tax ñun làmb tey mënuñoo mënuñu mënuñoo def kaa quoi ci bi nga gisante de ah? man bëri naa six combats gisuma ci benn adversaire waaw ah, six combats damay ñëw ba ci làmb ji di xool kan laa war a bëreen làmb ji arbitre bi daa sifflé rek mu jeex ma yenu ko dóor suuf. nga jógee ñu jox ma xel euh, koom bu jàmm gan. waaw. Iba Mar. moom tamit baat ak tontu la. waaw moom tam baat ak tontu la. troisième combat. sama troisième combat ñu jox ma zoo technique bu Kër Mbaye Fall. moom tamit baat ak tontu la. maa ko daan waaw. mais man soo technique seetaan naa ko benn interview mu ne moom moo la njëkk jox moom moo la njëkk jox defet waaw xam nga kenn ku ci nekk ak li ngay gëm ah, mais kooku gis na zoo technique nu mu toll ba may bëri moom foofu laa ko gisee te arbitre daa sifflé mo dox ci kawam dóor ko daan ko jël bu rëy arbitre ju jox ko victoire ne man damaa def kaatape mais man sama victoire laay compté ba léegi ah, wax dëgg yàlla parce dama ko daan. parce que parce que dama ko seetaan benn interview euh, fële nga xam si ni moom mooy jour bi soo teg di bëri ak Pape Rebo mu ne Kaaw Gourné mii maa ko njëkk a daan. waaw xam nga kenn ku waxee nga ne yow yaa daan soo technique daf may jaaxal. non soo technique kooku mënu ma daan kooku moment boobu mënu daan ba ci moment bii mënu daan waaw ah, mais moom sunu waay la ku baax la wax dëgg yàlla ku baax la ah. waaw mais allah mi ngi jàppale làmb di taxawul làmb. non ku baax la wax dëgg yàlla man jotuñu am gise yu bari sax mais bu ma jumul tam moom sama benn combat ñu daje arène nationale mu may conseil xam nga man moom mag gis ñu jëmm ji nu mu toll mais bañ dajee moom arbitre daa sifflé rek ma dox ci kawam <laughs> loolu la demee si quatrième ñu jox ma Rouge Bordeaux numéro 2 fo Rouge Bordeaux numéro de waaw moom tam ma daan ko ah, ci baat ak tontu. cinquième combat. cinquième combat ñu jox ma Caporal. baat ak tontu la moom tam waaw. sixième combat. ñu jox ma Ibou Socé tontu la moom tam waaw. sixième combat. <laughs> sama ñu jox ma bu ma jumul ñu jox ma ñu jox ma Samba numéro 2. bu bu bu bu Pout. ma daan ko. Mhm. Euh, huitième combat. huitième combat ñu jox ma Zilo. nono non junior. bu Grand Yoff ma ko. waaw ma ko. su neuvième combat. ci la ma rawaan kii daan lu mu tudd waay euh, këll gi. waaw après gi boobu daan naa ko sax xam naa ko bu baax parce que ñoo ñëpp ba may bëreeg ñoom dama tourné jël leen parce que ku tegle lu mot huit victoire amoo benn défaite nga jël leen ñi nga xamante ne ba ñu gëjee bëre xaw ma ban la nga jël leen yàlla def ci def ci nga am ci defet xam nga mooy loolu. série bi nga nekk moo tax euh, nu mu tuddee naw la woo yooyu laa gën a sonn sax ci làmb wa ci wàllu entraînement hmm? waaw. waaw may entraîné bay bëgg a dee. sa ñu jox ma ñu jox ma kii nu mu tudd waaye di jàmm ngeen moom tam mu daan ma waaw. day waaw ah, trop mais terewul ma bàyyiwu ma de waaw ah, dëgg yàlla parce que xam nga rek boo nekk boo nekk boo nekk ñi nga xamante ne say nit lañ say xarit lañ ñu nekk say soppe nekk say mag lépp looy def rek ñu nekk sa ginnaaw kon yow amoo amoo droit di def erreur wala leneen nag leneen amoo droit sax di bàyyi yee loolu la demee mu ngi noonu SBT Média dégg ngeen fi waxtaan bi toll ah Ka Godin lañ invité seen émission seeti mbër te adversaire yi nga xam si ni tey ñoom la fi laala ci làmb ñi ko daan ak ñi nga xam ñoom la daan mu tegale mu mu tegale deux défaites deux défaites mu metti mu jógee fa sa onzième combat. jom ma deux ziga <laughs> deux ziga daan ma. deux ziga daan ma daan ma tegale trois défaites. <laughs> Ka la. waaw boobu dara lu war a am la rek lu war a bokk ci carrière bi la rek parce que xam nga rek tout est défi tout au début. c'est difficile n'est-ce pas te ñun suñu suñu début dafa neex ah dafa neex kon buñ ñëwee ba ci ba ci càppaandaw bi mu am nu mu demee rek dañuy sant yàlla bu baax waaw parce que loolu yëpp ñu ngi ko doon sóoraale quoi waaw yooyu yëpp ñu ngi ko doon sóor waaw noonu la demee non yooyu yëpp ñu ngi ko doon soor ñun ba ñuy teg la ay victoire ñu ngi doon sóor bis dina ñëw mu naqari mbooloo bi wàññi déedéet <laughs> déedéet boobu la samay nit gën a pare boobu la samay nit gën a pare parce que heure bu ma daanoo rek bu ma génnee ci ci mbapat bi dem bëri ji dama damay jël drapeau waaw ma xam ne tamit lu war a am la ko parce que bu nekkoon damay daanu fii dem daanu fee ñu ne waaw mais damay daanu fii dem jël fële yaa noonu la demee. douzième combat. non ci lañ ma ci lañ ma ci laa duggee ci gala bi ci tournois bi waaw. première phase bi arène nationale ñëw gars yi def la def la outsider. jël jël caat daawar faal def ko tokaar jël kaaw euh, yankaaw def ko favori jël albarka def ko favori parce que booba albarka mu ngi jógee si combat bi métti diggante ba mëcc mais noonu la demee galaa boobu nag dama koy expliqué expliqué naa ko ñaari yoon xaw ma ñetti yoon galaa bi amoon droit dugg ci dañ doon tëgg sama combat maag albarka kayre combat bi mujjeewul antu albarka kayre moo tax ma dugg ci tournoi bi waaw bañ ci bañ ñu ci boolee tamit ñu xam ne tamit lépp lu ñu pertoon ci ñett yee mun nañ ko dabee fii waaw ñu liggéey ci nag liggéey ci bu baax ànd ceeg euh, école de lutte Dalifort bi yëpp rawatina Dalifort fooraay bi waaw ñu ñëw yàlla defal ñu ci jàmm bu baax a baax a baax a baax. tàng jër albarka leen ñëpp laay seeñu seeñu seen yax mucc seen deret. waaw boobu xam nga kenn ku ci nekk danga koy bàyyi ak lu mu moom ñun yàlla daa def ni wax dëgg yàlla wax moom. dañ cee mënewul dara ñun jëf lañ gën a mën waaw moo tax boobu boo xoolee la ma ñëw rek jàpp sama boobu xam li ma xam xam ni ñoom ñett ñëpp buñ ñu tegaloon ñoom ñett ñëpp ñu tegal ma leen benn fan ma daan leen benn fan waaw. ñu gis ne ñu gis ne keroog dafa ñëw rek singili ki nga xam ne moom mooy Yankaaw mais keroog dafa mel ni yaa yaa yaa caat daaw dafaal keroog parce que gis naa sa benn instant ñu naan premier tirage bi ñaar. waaw mais boobu kenn ku ci nekk danga doon wax li nekk sa xel rek mais li nga xamante ne moom. yàgg-yàgg da ngeen di daje moom jarul jarul xoj kii daje wala kee tirage bi da leen di boole fala fors loolu moom ala kulli àll la. Mhm. bu nekkoon sa diggante albark albarka. albarka waaw boobu mu nekk lu ma marqué nag wax dëgg yàlla parce que boobu dama ci jël ay coono yu bari man leer na li ma daj ñoom ñëpp kenn daju ko ci. parce que dafa tombé koor koor gi dama doon jóge fii midi dem entraînement ba deux heures te man leer na ma ni xaaj bi xaaj ñoom defuñu ko. boole koog di woor trois séances laa doon def ci koor gi moo tax gis nga làmb jooj ba mu ñëwee damaa jeex tàq mais man leer na ma li nekk ci man ñoom ñett bu ñu taxoon ma daan la. waaw mbooloo mi nga indi stade mbooloo mi parce que man keroog ci kaw laa nekk jour ba porte bi ci kaw maa fa nekkoon waa Dalifor fa lañ ma romb mujj gi mënut ma leen sax contribuer damaa bàyyi rek gars yi saral waaw parce que boobu dañoo soxla woon victoire bu baax parce que dañ kenn ku ci nekk xel xel bi day dem ci ñett ñu jógee ñett te terewul waa ji bàyyiwul kon ñoom ñëpp dañoo war a ñëw jàpp ci moo tax mu demee noonu ñu ñëw tamit yàlla suturaal ñu may ñu ndam ci kaw albarka Kaïré ko nga ñëw sa diggante ak Yankaaw deuxième journée bi première action bi nga daan ko action bi continuer après ngeen ñëwaat arbitre bi léegi mu daan waaw mais loolu ci règlement làmb la bokk de après buñ ci jigee yoon am na lum ñu may ñu dem def ko yàlla suturaal ñu may ñu ndam ci kaw ñu gis am victoire ci biir géew bi biir làmb yóbbaale ko sa koñ feetu yaakaar naa moo dàq loo man a gis est-ce que jotut euh, CNG ñu xolaa règlement bi ñu jéem ci taxaw fexe ba bu làmb ma amat lu mel noonu bu amatee am litis am coow ñu man ko régler ci biir stade bi ñu xam ne kii moo daan ñu yokk victoire am ki daanu dem. non loolu moom moo dàq la mais man ba ba ba may ñëw ba ci laan demee bi ñun ñoo ngi zibilé parce que xam nañ ñu ñoo daan waaw noonu la demee xëy na nag drapeau bi la lay ëpp ci la lay ëppee. tuuti rek mais victoire bi moom ala kulli aali moom dañ koy féete. recours kay bu amee bu CNG validé drapeau bi dañ ko war a jëli. waaw yooyu moom loolu amul loolu moom amatul moom. loolu amatul. Ah, waaw loolu moo war a nekk mais amatul mais lu ci solo mooy victoire bi rek palmarès bi na ci diw bokk rek waaw bu ci bokkee moom les yeneen yëpp amul problème moom waaye. ñëw ci digganteeg Thiat Daouda Fall ñaar bokk ngeen woon ci ci ci affaire bi dañ a jëloon berlin far yéen ñaar ngeen génn kenn ku nekk ñëw marqué ah 6 points Thiatou Daouda Fall ko xool digganteem ak Albarka ni mu bëree xool digganteem ak Yankaaw ni mu bëree ah, waaye ko xool sa diggante ak Yankaaw sa diggante Albarka xam ne yi ñaar kenn ku nekk am nga loo bëgg am nga fotte sa bët mu nekkoon combat bëri coow idaal tëggoon ko ñu jékki-jékki ñu ne combat bi idaal tëggatu ko lan moo waral coow lan moo waral. coow li du dara lu dul lu sunu borom dogal moom da nga koy nangu rek. idaal yi moo ko commencé mais yàlla dafa def ne mujj yeggaliwu ko yeggali bi nag du ci ñun ñun ñëpp. xëy na sunu borom moo dogal ni Jaksi da koy yeggali muy sunu papa Idaly du sunu mag xëy na noonu la waroon demee rek. cest yi ñu xam ko man ma xam ko si ñeneen xam ko si mooy lan moo si nekkoon promoteur bi li ma waxante woon ak yéen koo defut wala lan la wala yéen seen bopp yéen a bëggoon ñu yokkale la. man moom aw ma ci woon benn paar bu dul signé nañ damal nga entraîné ji <laughs> waaw paar boobu rek laa jamono aw ma ci woon leneen moom ñu mu doon contagal ñoom ñoom la xam. képp ku mu ci doon waxal tamit moom la doon waxal man après lu ma ci am mooy yaa ci sa diw kii moo ko bëgg après jeex na après ma dem ma nekk ci lu ma war a nekk quoi. waaw coo cool yi is nekkuloon cool yi moo nekk doomu mbër bi doomu mbër bi ak ku nekkul doomu mbër bi xëy na loolu moo nekkoon coow li mais ki nekkul doomu ku nekk xam ne um, um na làmb ndax booba avant avant tournoi bi tegale nga arène nationale macha allah deux tournois yoo xam ne yaa ko jël. ñi xam ñi ma xam. maag Thiat Daouda Fall du coow. te yaakaar naa wax naa ko samay interview yu bari man ma daan ko du surprise. du événement déedéet du événement loolu du coow. mu daanoon la moom mooy événement mais yow nga daan ko du événement. déedéet parce que sama làmb coow dëgg-dëgg maanaam lii war mu war a nekk coow mu ngi sunu kanam du yii yëpp mais caat macha allah xale la xam nga muy woon ci yoonam xam nga mu war a dajeeg comme nee na man paa mu war a dajeeg paa bi xam nga xëy na loolu moo andi woon yenn argumenté yi quoi. mag mi da war ni ko magee daal li nga nangoon li nga nangoo doon paa dafa mel ko nangul parce que man xam naa ni ginu ginumaa nekk xale te bu nekkee liggéey ah naa <laughs> nit mënuma ci de. Thiat <laughs> Daouda Fall mën nga ñu see ñëwaat arbitre sifflé nga commenter combat. waaw Thiat lu dul lu dul sunu papa yàpp ñu muy tombé seen nañu carrément arbitre bu sifflé doxal ci kaw man loolu laa xam man ak noo mënti toll bu arbitre sifflé dafay dox sa kaw. yaa waxatuñ leneen mais bu mu la jàppee moom jaayoo garaax bu mu la jàppee moom làmb ji day jeex ah ak noo mënti toll moom bul ñaan yàlla ma jàpp la ñu gis première action bi nga àgg ko fa sori ngeen jargandu dem ba saak ngeen jargandu wàcc arbitre bi andiwaat te pourtant boobu daa daanu daa def katape première action bi daa daanu parce que ba léegi génnuñu ñu ngi ci jibi ci diggi saako bi ba léegi ci làmb ji mu daanu arbitre sifla ñu ñëw taxawaat mais man xam naa ni kii dama koy daan parce que lu ma liggéey la te lu ma gëm la wax dëgg yàlla billaay wallahi xeex bi kenn <laughs> bi waa loolu dañ ciy sant sunu kër ku ci mel ni Abdou ah Abdou ñoo ngi koy bëggee di sant Père Tombé waat Père Tombé bu baax a baax a baax a baax waaw lépp ñoom la xëy na comme li ma la wax rek man sama làmb coow daa ñëwagul li ma war a wone ci làmb muy xeex ak ak leneen ak leneen buñ ñu joxee ponkal yi la xam ni carrément ñii am na lu nekk ci ñoom waaw ba léegi maa dégg sama lamb coow ñii sama lamb du ñoo ma daan leen nekkul événement ñoom ñu daan mooy événement dégg ngeen fi waxtaan bi toll léegi ñu ñëw nag ci le 20 mars sa diggante Ronaldinho mi nga xamante ne nii ñëpp dañ nga fay bàyyi borom top 5 <laughs> mais Kaaw est-ce que bi ngay jël Ronaldinho tàggoo nga